ah mais lii mbot yi daanul armé de mbot yi daanul armé de armé missile. armé doo ko dem ni da nga ba mu defee lu. armé ñeme nga koo dóor yow taxaw jàkkaarloo armé. armé du ma bëreeg moom nag mu may yàpp. combat boobu yéen xam ngeen ne faj mer la sax mais loolu du làmb. xam ngeen lool sax bokkuñu non bokkuñu bokkuñu bokkuñu. gisuñu benn yoon armé sotti bu man def. joo jubul man defuma dara yéen a wax nii rek ma wax de yaa ma gën a xam. Ah. mais làmb nag léeg-léeg day ñàkk erreur du ñàkk ah. waaw sant yàlla rek loolu dara. da ngaa ci combat capital sa diggante ak Zarko nga am ci defet lan moo tax nga jël armée soit wu armée. sama soit sama soit papa Bada Dione la rek xam nga li ma la. waaw mais du sama soit quoi xam nga moom mooy loolu. kon Père Bada moo jël combat merci. mais xam nga mu jeex ah. mais yow xam nga importance combat xam naa. importance bi moom mooy ñëw ma ñëw mu jàpp ko ndànk daan ko mu leneen mënu jeex. Hmm. ah xanaa mu daw. Armé du dawal góor. ndaw jël bu gaaw. combat yu bëre yëpp da ci day dawut laa la wax ndaw jël bu gaaw. mos ngaa gis Armé bu mu teggee tànkam ndaw. ndaw mbay guy mos nga koo gis. li ma yor la du attan li may indaale combat bi la du attan. Hmm. ci lan la mystique doole bëre. ndeysaan booy ba jëli na ko booy booy lii laa bëgg ci mbër booy merci booy sàcc rek mbay guy gi jël na tànk booy nag wax dëgg yaa daan jël tànk doo ci génn tey moom doo ci laa <laughs> ilaaha illallah eh na jëli jàppante nañu ndeysaan jàppante nañu daanooti na booy bi booy bi daanooti na